xaybatul baxriya al mubaarak mooy tukki géej gi nga xam ne bu ñu barkeel bi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa xaadallaahu lahu maxtaara lahu euh, amaloon sëriñ Tuubaa nag ñu ngi gëne jamono 1852 bi mu demee ba ci 1881 nag ci la Mamour Anta Sali di waajuram euh, wàcceeb liggéey 1883 ci la woote yoonu murit ndax bi waajuram wàcceeb liggéey ba am ñaari at ci la woote yoonu murit mu def benn at 84 Mbàkke Kajoor daal di fay tuxoo 84 ñëw Mbàkke Bawal def fa 84 85 daal di fay toxoo nag dem sanc daaru salaam muy dëkk bi mu njëkk a sanc 86 la sanc daaru salaam 86 87 la fa am ñaari at la fa def daa defay toxoo 88 88 la sanc Touba 88 nag ba 1895 juróom-ñaari at yooyu mi ngi Touba. juróom-ñaari at la def Touba daal fay tuxoo nag ñëw Mbàkke Baari Jolof ndax loolu la ko waral nag mooy tuxu tuxu yooyu day dem ba mu yàgg nit ñi di ñëw bu ñëwee nag day dem ba mu yàgg nag te moom bëgg na di wéet di jaamu yàlla moo waral muy tuxu noonu bi mu ñëwee Mbàkke Baari Jolof nag ngir bëgg bërëb bu wéet boo xam ne nii dana fa mën a jaamoo yàlla nit ñi nag ñëw fekk si ko fa délégation yi di ñëw ñenn ñi ñëw di tërbiyew ñenn ñi ñëw di euh, sàkku ci xam-xam léegi nag ci la euh, rambaajkat yi nag tàmbali nag di ko jaxase ak tubaab bi ndax jamono booba euh, kii ñuy wax Samba Lawbe Penda nga xam ne bi nga xamee ne tubaab bi jële na fi Albouri ndax Albouri dafa dem dooso ca ninisière euh, ci la tubaab bi nag daal di jël Samba Laobé njaay daal di koy def mu nekk chef de kanto bu Jolof Mbàkke Baari Jolof nag moo tax Samba Laobé nag ñëwoon seet si Sëriñ Tuubaa léegi nag euh, am ku ñuy wax maam Abdouloo maam Abdouloo nag bi mu ñëwee gis Samba bi ak euh, Serigne Touba mu jàpp ne ñoom ñaar ñooñu dañuy complot pour dal ci kaw tubaab bi mu ñëw nag def saaru espion maanaam di di agent secret ak di fa yebal ay nit pour ñu xool ba xam diggante bi am nag euh, dañuy dañuy dañuy jàppalante pour dal ci kaw tubaab bi loolu nag euh, Mama Abdoulou bàyyiwut loolu ndax Mama moom li gën a tax ñu yóbbu sëriñ bi Euh, ci géej gi ma abduloo moo ko moo ko xambu maanaam moom moo moo moo ji diggante euh, sëriñ tubaab tubaab bi yàlla dogal nag maam abduloo muumu nag moom boo demee ci minanul baaxil xadim bu seex muhammadul bashir ibnu seexul xadim wax na ko fa euh, seex muhammadul faadal moom it wax na ko te boobu fekke na ko moom nee na ma Abdoulou bi nga xamee ne Samba bi Ndiaye mii di chef de canton bu Jolof dafa amoon benn tamponné bi muy tamponné nga xam ne bu bindee lettre ba pare day day tamponné léegi nag tampon boobu dafa yàqu woon nag mu joxoon ko benn naar bu nekkoon ndar pour naar bi defaral ko ko répareel ko ko léegi nag ma Abdoulaye ñëw fa benn ngoon yor wenn kayit daal di ñëw ne naar bi ndax sàmbelaw ba tempon bi mu la doon defarloo ndax baax na mu ne ko waaw mu ne ko ma xool mu jox ko mu daal di fopp tampon bi sëpp ko ci encre bi daal di koy taf ci kayit bi bi mu ko bësee ci kayit bi daal di xool lépp daal di ñëw mu ne ko waaw baax na kay daal di koy delloowaat daal di foobaat këyit wala leem def ci poosam boo demee ci minul baax xadi man ca léegi nag moom ci boppam nag moo bind ab leetaram moom moom ma abduloo moomu moo bind ab leetaram waaw daan ne yow borom ndar man Samba Lawbe maa ngi lay xamal ne Ahmadou Bamba mii nga xam ne dafay jóge Bawal fekk ma ci suufas Jolof maa moom mënatuñoo dëkk na génn wala man ma démissionné na génn wala man bi man ma démissionné waaw ndax su ma wootee lii mu woote lële su ma wootee su ma laajee impôt moom mu ne addiya maanaam daa ñëw daal mel ni ku ma contre daal kon nag da koy da ko fiy jëlee wala man ma démissionné bàyyi daa di koy signé jël tampon sam jël tampon sàmbalaw bi maanaam tamponné ba mu tamponné woon kaase booba daa di koy daa maanaam fekk tamponné woon na ko daal di fab leetar bi ci courrier bi léegi nag borom ndar jot leetar bi moom nag moom moo doon jàng bi bi mu ko jàngee nag borom ndar ne ko lu ci lu ci xalaat mu ne ko xanaa dem jëli ko rek ko loolu rek mooy xalaat nga jàpp ko nga xam ne moom moo moo moo bind leetar bi moo ko jàng ci la tubaab bi nag daal di convoqué siñ bi bi mu ko convoqué nag convocation bi mu dikkee nag tubaab bi bi mu convoqué sëñ bi sëñ bi daa di yónni maam Cerno maam Cerno Ibra Faati daamal daaru moom la yónni jox ko leetar leetar ba nag euh, lam ci bind mooy man ci gàttal rek mooy bul déglu rambaajkat yi nga xam ne dañuy jaxase sama diggante yow man jaamu yàlla rek moom ma tax a jóg waaye mbiri àdduna yi yépp yi teelu ma fa ni leetar ba àgge léegi nag euh, maam na Ibra Faati boo demee ci Minanul Baaxil Xadiim da ciy wax ne euh, maam Thierno Ibra Faati bi nga xamee ne leetar bi jox nañ ko borom ndar borom ndar euh, bi mu utee interprète interprète bi di di ndax arab lañ ko bind interprète bi di wax nee day gis borom ndar day meram meram mer di fëgg taabal yi nga xam ne maanaam liñ bind ci lettre bi ak li ñuy wax wuute na liñ bind ci lettre bi ak li ñuy wax wuute na ci la maam Thierno dem woo woo keneen koo xam ne moo koy interpréter mu ñëw bi mu dikkee nag léegi mu jël lettre bi jox ko ko kooko di di wax mu gis maanaam boroom ndar euh, kanam gi di leer nga xam ne na merewoon daal merewu ko mu xam ne kon euh, am na ak jaxase gu ci nekk am na jaxase gu ci nekk ndax rambaa yi dafa bari woon léegi nag euh, bi bi euh, entrepreneur bi jàngee leetar bi làkk ko ci français bu ko jàngee ba yeggal nag ci la boroom dar daa di wax maam Thierno ne ko man de yónni woon naa ab armée boo xam ne da dem jëli ko waaye nag danaa wax armée bi ñu taxaw moom mu ñëw ci la maam Cerno nag daadi di bàyyi ko ndar googu nag war a dellu jolof waaye nag bi muy dem dañ ko booleeg am kuñ ko booleeg pour mu pour mu wan ko yoon wi waaye nag euh, kooka daf ne ko duma dem te réeru ma ñi reer ba pare mu ne ko man dama damaa ragal doxab guddi nga xam ne yooyu yëpp maanaam bëgg armée ba àgg jàpp si yow moom ñoom loolu lañ soxla booba ci la maam Cerno daal di xool benn bidiw rek topp bidiw boobu nag bidiw boobu nag moo ko andi ba mu agsi li muy agsi fajar la agsi fajar ci la fekk sëñ bi julli fajar ci jàkka ji ba noppi bi mu jullee fajar nag ci la maam Cerno nag daal di koy wax lépp wan ko yoon wax ko yoon wi la ko taxoon lam ko yónni woon lépp mu leeral ko ci la sëñ bi nag daal di bàyyi ko Mbàkke Baari Jolof googu nag ñu génneel ko bagaasam yépp mu war a bàyyi ko Mbàkke Baari Jolof nag war a wuy ji gouverneur ndax gouverneur moom lim jàppe woon sëñ bi mooy comme moroomi sëriñam yi nga xam ne nii ñoo fi ñoo ñoo ko jiitu nga xam ne dañ doon fetal jihaat comme ku mel ni Maba Jaxu Ahmadou Seexu Ba Seexu Omar Foutiyu ak ñu mel noonu nga xam ne jàmmaarloo woon nañ ak euh, tubaab yi léegi nag loolu nag moo waral moo waral nag euh, ñi jàpp ne sëñ bi it loola moo ko tax a jóg moo tax euh, bi ma Abdouloo leetaram bi mu ñëwee rek moo tax ñu daal di koy convoqué waaw sëriñ bi nag bi ko ndigal suñ borom dikkalee nag ci la génn nag Mbàkke Baari Jolof googu nag di wuy ji gouverneur waaye nag suñ borom daal koy sange ndax mi ngi wax ci xasida gi naan wa jaala almuxtaaru sallallahu alayhi fi l aali wa man walaahu lahu xijaaban maanixan min addarar summa qaala lahum si laa taxsa qarar ci la génn ci këram gu nga xam ne mi ngi nekk jolof nag xëy da ko tabaxoon ngir jàngale ak jàng bisub gaawu di fukki fan ak juróom-ñett ci ama jey sasin tolloog mi muy trois cent treize tollook le dix le dix août mille huit cent quatre-vingt-quinze ci la tolloo léegi nag mu daal génn nag bi muy génn nag mu ngi fekk it nag euh, benn armée boo xam ne ni mi ngi jógee Louga mi ngi jóge Louga léegi nag moom it mi ngi jóge Mbàkke Baari Jolof benn armée jóge jula euh, Louga ñu war a dajee ñoom ñaar nag ña nga dajee jeewal jeewal lañ dajee ñoom ñaar bañ dajee jeewal ñoom ñaar ñooñu nag Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana wax na ci Iraawu Nadim nee na sëriñ ma bànji njaay nee na nettali na ko ne moom booba ma nga àndoon ak ñu ànd ak sëñ bi ca bis booba nee na bañ àggee jeewal nee dañoo dañoo ñàkk am ndox ndax foofa ndox dafa xaw a manqué te satal ak sëñ bi amul ndox nee na jamono booba nag ñu ngi jaaxle lool fan la ñuy uti am ndox waaye ni tur rek am benn jëmm joo xam ne nii mu ngi yone mi ngi yenu ak mbuus goo xam ne nii mi ngi fees dell ak ndox ci lañ wax ak moom nag waaye déggantewuñ mu daa di ñu daa di tàllal satala mu daa ñu koy duyee la ba mu fees ñu daa di naan sëñ bi daa di jàpp ndax sëñ bi daawut tiim jëmm ñi nag daa di dem dégguñ ci moom nag benn xibaar walla benn làkk ndax xamuñ li muy wax loolu nag karaama gu yéeme la goo xam ni sëriñ ma bàññi njaay moo ko nettali Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana nettali na it ne sëriñ bi ba mu àggee tàkkusaan nga xam ne bañ àggee bañ àggee jeewal ca tàkkusaan ji nag ca la ko njiitu armée bi mooy commandant Leclerc daal di ñëw nag bëgg a wax ak moom nee na mu daal wëlbati kanamam daal di dummóoyu commandant Leclerc daal di jublu nag yàlla daal di jàng juróom fukki bismillahi rahmaani rahim nee na ba mu ko jàngee rek nee na ci la tar-tar gi mu yoroon ak euh, tàngoor ba mu yoroon daa di sedd nee na mu di gaaw daa di dellu ci ay soxlaam nee na foofa nag fa lañ fanaan mook jaraaf ji nga xam ne walla njiit li nga xam ne nii mooy nit ku ñuul ka ndax euh, commandant Leclerc bi muy ñëw ndax euh, ma abduloo bi mu jàngee lettre bi euh, boroom ndar dane ko euh, daf ne borom ndar borom ndar dane ko lu saqalaa mu ne ko xanaa jàpp ko moom nag moom ci boppam nag moom lañ joxoon digalal jàpp ko commandant Leclerc dafa ànd ak moom pour moom mu jàpp si ko commandant Leclerc dafa ànd ak moom pour mu jàpp si ko moo tax bi muy ñëw moom moom moom commandant Leclerc maa abduloo la àndal maa abduloo nag moo doon jàpp si siñ bi ànd ak euh, gendarme yooyu ak euh, espace yeeg poli euh, militaires yi léegi nag bi nga xamee ne fanaan nañ foofa ci jamono boobu maanaam bi armée bi di ñëw di jël si siñ bi booba am na benn taalibeem bu ñuy wax suñ Omar ñaan suñ Omar ñaan moomu moom daa ñëwoon waaye nag waa armée bi dañoo jàpp ne moom dañoo ànd ak moom rek dañoo ànd ak moom rek waaye Euh, pour mu jàppale leen waaye moom ndeke moom daa ñëwoon pour siyaare sëñ bi moom euh, sëriñ Omar ñaan ci euh, armée bi nga xam ne moo doon jël si sëñ bi moom ci ci la ci la àndoon waaye moom moom jël si sëñ bi taxu ko woon a jóg waaye dafa ñëwoon moom pour siyaare sëñ bi léegi nag sëriñ bi nettali na ne ki nga xam ne ni mooy commandant Leclerc moom mu nga xam ne moom moo ñëwoon pour jël si ko commandant Leclerc nag moom nag moo nekkoon gorob borom ndar moo nekkoon gorob borom ndar nga xam ne moom maanaam bëggutoon siñ bi daawut wax ci sëñ bi lu baax daawu ko ca jëf ndax maanaam képp koo xam ne nii ñëw nga walla ñu ngi wax sëñ bi pour bàyyi ko moom day lànk te loolaa tax sëñ bi bi mu demee ndar mu yàgg fa ndax discuter yooya moo yàggal sëñ bi ba sëñ bi nga xam ne def na fa daanaka ñaari weer yu manqué ñaari fan moo tax mu ànd ak aaya bii nga xam ne maanaam liñ dogal ci moom liñ àtte ci moom dafa ànd ak aaya bi wa is yamkuru bika llazina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw ko wa yamkuruuna wa yamkurullahu wallahu xayrul makirin léegi nag yàlla dogal na nag maanaam ñett yooya nga yiñ àtte woon ci siñ bi ñett yi ñu àtte woon ci siñ bi mooy benn ñu ray ko wala ñu tëj ko walla ñu génne ko léegi génne gi nag moom lañu mujj dogal mooy bi nga xamee ne àtte nañ ko génne gi lañ mujj dogal Sëriñ Tuubaa wax na ne ñett yooya ñi doon nisar benn ci ñett yooyu yàlla faye na ma ñett ya mooy bi may dem ci géej gi fu ab sëriñ di àgg rek àgg naa fa ci martabab gëm yàlla ak euh, lislaam ak ihsaan imaan ak islaam ak ihsaan àgg naa fa waaye nag dafa am loo xam ne nii desoon na ci man te loola sonaloon ma lool ba mu teemaa nelaw te ñàkk ko moom métti woon na ma lool ndax ñàkk ko moom daa mel ni bëñ bu wadd rek wala baaraam bu dagg te loolu mooy kamaalul imaan matuk gëm yàlla te mooy xam yàlla dëgg dëgg xam ak kamaalul islaam matub islaam te mooy ak wóolu kamaalul ihsaan matub ihsaan te mooy àgg ci yàlla dëgg dëgg àgg ci yàlla te nee na mënumaa am ñett yooyu lu dul jaxasoog tubaab yi te jaxasoog tubaab yi nag moom bokk na ci li nga xam ni mën naa rekki gëm wala iyaasu billah nee na jaraaf ji jël si woon sëñ bi te nekk nit ku ñuul xam nañ turam xam aw xeetam waaye Cheikh Mouhamed Diop Dagana nee na du du sobeel xalimaam ci tudd ko waaye nag euh, moom mi ngi tudd maam Abdou Lo maam Abdou Lo nag turam dëgg dëgg mooy Fara Biram Lo noonu la tudd Fara Biram noonu la tudd moom nag ak ki nga xam ne nii mooy mbokkam mi nga xam ne dafa nekkoon jullit ba noppi daal di nekk chrétien tub bi nekk chrétien te nekkoon Grand Bassam nga xam ne moo doon ñaawal siñ bi ba muy dem ci géej gi nga xam ne mooy ma euh, duuduma mbay duuduma mbay mu nag ak maam abduloo ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay maam abduloo mooy ki def pexe bañ jàpp sëñ bi duuduma mbay nag mooy gënoon sonal sëñ bi ci géej gi moo tax euh, sëñ bi nag daal di fanaan jeewal euh, bi mu fanaanee jeewal nag mi ngi doon sikkar inna waliyallahu lazi nazzala alkitaaba wa huwa yatawalla saalihin moom la doon sikkar moom la doon ëpp lu mu doon jàng nga xam ne fa la taalife ay yasaminillahu inda jeewali iblisa isnaadaytuhu bi yaawali nga xam ne mooy loolu mooy iblis naagu na ca man ca jeewal yàlla naaguloo na iblis ca man ca jeewal jamono ba moo koy woo ci yaawali inna waliyallahu alladi nazala kitaaba wa hitam ala saalihin sëñ bi daal di fanaan foofa nag eh, gannaaw suba nag gannaaw ba mu jullee suba la daal di laxas nag daal dem kokki kokki googu nag foofa la yendu ba mu yendoo foofa nag fa la taalif asmaawu ahli badri asmaawu ahli badri foofa la ko taalif léegi bi mu ko taalifee foofa nag ca bisu dimanche ba nag nga xam ne fa la yendu léegi nag euh, ca géega nag nga xam ne jamonoy gée nga xam ne kokki ba mu nekkee kokki jamonoy géega nag la fa daal di jóge nag nga xam ne jamono booba weer wi mi ngi leer di guddik altine di guddik ñaar fukki fan mu daal di jóge kokki nag nee na booba ñun ñi ngi dox euh, taw bi di euh, wis ndànk-ndànk wis bu ndaw neena sëriñ bi nee na dox ci guddi googa mi ngi waroon euh, benn fas woo xam ne nii fas wu jébb la fas wu jébb woo xam ne nii mi ngi na tudd yi léegi nag nga xam ne moom fas wu moom day raw waaye kenn du ko dab nga xam ne sax ñoom ñi ànd ak bi ñu ngi koy wax naan sëriñ bi xaar ñu defal ndànk mu leen nan la ngeen di yóbbu mu leen di jiitu nga xam ne sëriñ bi nee na ba nga xam ne agsi nañ Louga maanaam dem nañ ba jege luga benn waaye nga xam ne mi ngi bokk ci euh, ñiy liggéeyal tubaab bi nga ndeysaan nga xam ne da ko yërëm daan ko sëñ bi ngànnaayul de jege nga noon bi jege nga noon bi moom it mu daal di wax ci kàddu gu dëgër daan ko yàlla lottut te du wuute nee na bañ demee ba àgg ba toog nag ka nga xam ne nii moo ko doon wax naan ko nanga nga te moytu euh, tubaab yi tam tontu woon ko ne ko yàlla lottu te du wuute mu ne ko sëriñ bi de li ma wax nii de dama ko wax rek ngir euh, yërëm la naan la na moytu jege nañ noon bi mu ne ko bu tee boo gisee ma wax la ne la yàlla du wuute te lotut mooy damaa xam ne wax jii ma wax day wax jii ma wax day damaa xam ne yàlla moom dara fàddu ci moom loolu rek laa ci jublu moo xam ñu teew ak ñu ñàkk teew waaye yàlla moom dara fàddu ci moom nga xam ne bu ma yàlla aare ci kàttanam kenn du man ci man dara bu ma bàyyee ak ñoom it kenn mënuma tee lor yi agsi ci man daal di jàng aaya bi wa in yamsaska laahu bi durrin fala kaashifa lahu illa huwa wa in bi xayrin fala raadda li nee bi mu agsee Louga fa la yendu léegi bi mu yendoo nag euh, ba tàkkusaan ca la jël saxaar nag ca la ca la ci saxaar gi saxaar gi ne moo ko indi ba ndar biñ agsee nag ndar googu moom def na fa ñaari weer yi manqué ñaari fan def na ko fa ndar léegi nag euh, léegi nag euh, ci lañ ko àtte biñ koy àttee nag ba taxawal ko ci seen kanam nga xam ne booba ñiy dogal ak yépp ñu ngi toog ci kilifay eh, tubaab yi mu ne ci seen biir moom dong nekkut ak ku dul yàlla amul kenn ku ko wettile ñu naan ko dégg nañ ci yow nangam ak nangam ak nangam mu ne leen andi leen kan moo ko wax kan moo leen ko wax ngeen xool ba xam kan moo ci ak kan moo ci wax caaxaan ñi di koy wax ay mbir yoo xam ne daal xel mënu koo nangu ci moom li nga xam ne ak ci ñoom tubaab yi ak rambaaj dong la ak ak jaxase ak ak kiñaan ndax am na ñoo xam ne nii ay euh, sénégalais lañ ñoo doon ñoo ko doon jaxase ak tubaab bi comme ni maam Abdoulaye moomu léegi nag ca lañ àtte ci moom lañ àtte ci moom mooy génne ko réew mi yóbbu ko Gabon loolu lañ mujj àtte foofa nag fa la jullee ñaari rakkaam yooyu ñaari rakkaam yooyu nga xam ne moom la ñuy màggal ndax ba mu dikkee dafa daal di julli ñaari rakkaa daal di doog a wax ak ñoom léegi nag ci lañ ko dugal nag ci saxaar mu dem Dakar Dakar googu nag ci la duggee saxaar nag daal di jóge Ndar dem Dakar booba nag mi ngi woor bi mu agsee Dakar nag bi mu agsi Dakar booba jant bi soogut waaye mi ngi bëgg a sox te booba mi ngi préparé pour ndogu dog kooram gi ñu wàcce ko ci benn kër muy préparé pour dog ak julli timis far benn waay nag di yónni maanaam benn waay boo xam ne nii tubaab bi moo ko yónni mu ñëw ne ko kaay wuyu mu daal ànd ak moom ba mu ànd moom la ñu doo ko ci benn néeg boo xam ne nii néeg bu moom yàlla nañ ci yàlla musal ndax tàngaay wa tar na lëndëm nga tar na ba noppi xet gu naqari moo fa nekk léegi nag ba mu gisee ne ba mu gisee la wàcc ci moom nag mu xam ne lii natt bu ko yàlla teg la te it amul pexe lu dul dellu ci yàlla ci muñ ak gërëmloo yàlla ak sant yàlla te it amul leen lu gën a màgg loolu te lépp lu yàlla def rek loolaa gën mu di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nee guddi nee néeg booba falaa fanaan nag di dundal guddi googa ci zaaru baqara ak imran nee na nag moom la doon jàng muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi di tudd yàlla ndax yàlla mu ne ala bi dikrillahi tatma innul qulub nga xam ne guddi googa fala fanaan nga xam ci lay wax ne ida zakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa thubuta taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin dabba anil maahi nee na saa bu ma moomale fanaan day ak euh, gouverneur booba digle ma dugg ci néeg booba ak tëj gi ñu ma tëj ci néeg ba nee na sama bakkan daf may xiirtal ma jël ay xeej ay gunto jàkkaarloog tubaab bi jihaat ak ñoom waaye saa bu ma ko naree def rek euh, farkatu bàkkaar bi yent bi salaa salaam daal di may tere tubaab bi it euh, am na benn benn jaraaf bu ñuy wax euh, Ibra Binta Gueye Ibra Binta Gueye moomu yërëmoon na sëñ bi ci diggante moom ak tubaab bi léegi nag te tubaab bi booba mi ngi xaar bato bi dikk war a yóbbu siñ bi ndax bato bi ñëwagutoon Ibra Binta Gueye moomu nag moo ñëw ci tubaab bi ne damaa bëgg ngeen jox ma ko ma yóbbu ko sama kër ma bato bi dikk Ibra Binta Gueye moomu nag bi mu demee moom moo yóbbu siñ bi ndax tubaab bi jox nañ ko ko waaye dañ ne ko nag bis bu bu demee yow lañuy ñuy jàpp moom mu nangu ndeysaan moom sax bi sëñ bi nekkee ci kër gi doon na def ay pexe pour eh, pexeem yooyu pour téye sëñ bi maanaam mu bañ dem sëñ bi daal di koy woone ko li ngay li ngay def lépp xam naa ko waaye bay boo nga dala xel bu ma demee ci géej gi bu may ñibbisi ci ñi may ñi may teeru yow ci ngay bokk ñi may teeru yow ci ngay bokk moom la waxoon eh, Ibra Binta Gueye Ibra Binta Gueye nag jaraafi ca déem la woon ca déem moom nag euh, moo téye woon bi nekk sëñ bi nekk këram ba bato bi dikk bato bi bi mu ñëw euh, sëñ bi mu ngi fi jógee mi ngi fi jóge ndax sëñ bi nee na ba ñu xëyee bisu àjjuma euh, ba nga xam ne mooy njëlbeenu rakkaati gàmm rakki gàmm nga xam ne mi ngi tollook le vingt septembre mille huit cent nee na ci lañ dem nag ca bato ba daal di yéeg waaye nag ci la gaal gi dafa yendu foofa daal di fay fanaan xam ne kon sëñ bi bi muy dugg ci gaal gi bisu àjjuma la fa dugg waaye nag dugg na fa yendu fa fanaan fa nga xam ne ndeysaan bëri na ñu bëree bëri fekk nañ ko ci taalibe yi di jooy rek euh, Cheikh Ibrahima Fall moomu ca la bokk ñëwoon di ko seet si sëñ Tuubaa fa mi ngi koy wax naan wa qaalati safinatu almumtalia qaylulatan maa almabiti bilfia wa jaahu fi fulkihi almasxuuni muriduhu ayafatan mamxuuni wa waddaa almuridu summa rajaa ila aljazirati bi qalbin wajaa nga xam ne am na benn jëmm joo xam ne fekk na ko fa ca bato ba di ko laabiire naan ko am na benn njiit lu bees maanaam benn gouverneur bu bees boo xam ne ñëw na te moom euh, jaxasoo gu takk euh, sénégalais yi soo bindoon ab téere xamal ko ne ko dañ laa tooñ rek euh, dañ la delloo sa kër ak sa njaboot nee na dañul di ma wax loolu ba ma nar koo def nee na bi ma jëlee xalima gi rek ba commencé bind rek nee na ci la benn xitaab bu jóge ci yàlla daan ne ma ah da ngay yëkkati sa aajo di ko jëmale ci keneen ku man nee na ma daal di ragal ak kersa daal di far la ma bindoon nee na waa ji forcé ma ne ma euh, defal loolu rek siñ bi defal la ma na ko déedéet doy na defal loolu nee ca samedi ja ca samedi ja nee na la gaal gi nag gaal gi nag euh, daa di départ nga xam ne bisu samedi ci ñaareelu fan ci rabi usani ci la gaal gi nag daal di départ mu tolloog euh, vingt et un septembre mille huit cent nag biñ demee ba nga xam ne ni nag nekk nañ ci gaal gi nga xam ne romb nañ ko naakiri ci la benn waay nag daa di waa ji nag wolof la daa di mi ab saalum saalum la daa di koy jox benn hadiya hadiya bu duun daa di koy jox daa ne ko man kat damaa dégg ñu ne dama dégg ñu ne yaa ngi ci gaal gi waaye dañ lay yóbbu Gabon nee na moo tax ma ñëw siyaare la bëgg nga ñaanal ma yàlla te dénk ma nee na ci waaju ji nag ci laa déggee turu Gabon nga xam ne liñ ko yóbbu lépp xamu fuñ koy yóbbu ci laa xam it ne euh, birëb sàngam lañ may yóbbu ne maa koy ñaanal yàlla daal di koy dénk nag ca ndénkaan la mooy yow sama mbokk mi foo mën a nekk rek na nga xam ne amul benn buur bu dul yàlla te képp koo xam ne jublu nga ci ku dul yàlla it da nga xam ne amul benn buur bu dul yàlla ku jublu ci yàlla it ànd ak àndoog yonent bi sallallahu alayhi wasallam it na nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi yonent bi yàlla la neena ñaari tàggoo mu daal di dem nee na bi nga xamee ne romb nañ garam basaa nee na am na jëmm joo xam ne nii nag da koy ñaawal waaye nag yàlla dox sama digganteeg moom ci xereñu suñu borom ndax jëmm jooja kat moom mi ngi duggee Conakry Conakry la duggee waaye xamutoon ne maa ngi ci biir gaal gi ba mu demee bañ jegee garam nag te moom mi ngi jëmoon garam mu daal di xool bi mu xoolee nag fekk moom mi ngi nekk jëmm joo xam ne jëmm ju ñuul la daan ne daan ne ma ah yow yaay yow yaay Ahmadou Bamba daal di wax turam nee na maa koy xool mu ne ma ah yow de yëg naa ne sama sama mag moo la jàpp sama mag moo la jàpp ndax yow sa taalibe yi lu ñu ngi la koy wax loolu ñu ngi koy wax ci yow nee na fi waxee loolu rek nee na ci la gaal gi nag daal di yuuxu yuuxu gu kawe muy xaar nag mu noppi nag di xaar nag gaal gi euh, yuuxu gi dakk nee na yuuxu gi di continuer yuuxu gi di continuer nga xam ne ñaawal gi mu bëggoon ñaawal mënut a nekk nee na yuuxu gi di continuer yuuxu di continuer ba àgg Garambasa mu daal di wàcc nee na waaju ji nag mooy duudama mbay duudama mbay mu nga xam ne euh, moo doon ñaawal sëñ bi naan ko sama magala jàpp ndax ma abduloo moo jàpp sëriñ bi moo jàpp sëriñ bi nee romb nañ dawme dawme nag moom mooy mooy bene tey nee na bi nga xamee ne romb nañ àgg nañ bene nee nag nag euh, kimtaan gu yéeme daal di ci am boo xam ne yàlla moo ko teral ndax euh, dafa jël benn parfum boo xam ne mi ngi àndoon ak moom mi ngi ko yoroon di ko wis ci yéreem yi ak téeréem yi nee na benn tubaab ne ko sànni ko sànni ko sànni ko nee na bi mu ko sànnee nag nee na déng-déng mu daal di koy sànni ne bi mu ko sànnee nag nee na biñ demee ba gaal gi taxaw dawme nee na am mbooloo moo xam ne nii mbooloom jullit ñoo xam ne dañ maa dégg ñëw nuy si ma ne bi képp ku ma nuyu rek daal di may jox euh, parfum parfum bu bëree bëree bëri nga xam ne parfum bu bëree bari moo ko mujj dikkal nga xam ne ci lay waxee naan daani arrahimu daaw mi lahu bi ma agna anit tasawmi mi na ba tey bokk na ci karaama yi ko yàlla defal ci gaal gi mooy boroom gaal gi ci boppam ñëw na mooy ki nga xam ne mooy kapiteenu gaal gi ñëw na di waxtaan ak moom yërëm ko lool ñeewante ko mitit lu lool li nga xam ne moom moo moo moo dal ci kawam mooy jàpp gi ko tubaab bi jàpp di ko wax naa ko dañ laa tooñ anta mazlumun nee na it nettali na ci biir gaal gi it nee na am docteur boo xam ne nii ñëw na nga xam docteur bi docteur tubaab la ñëw na ndeysaan ñeewante ko naan ko man dama laa bëgg te danaa la dimbale bépp dimbali waaw nga xam ne benn docteur docteur bato bi moo ko doon wax nee na am na it benn xale boo xam ne nii ab waxambaane la boo xam ne nii euh, ab tubaab la moom it mu ngi bokk ci gaal bi bato bi ñu duggoon ndeysaan yàlla def xolam mu bëgg sëñ bi lool ba mujj gi mu di ko liggéeyal comme ni ko euh, taalibe yi liggéeyale ni ko taalibe yi liggéeyale nee na bi mu agsee Gabon nag nga xam ne kon béréb yi mu doon jaar euh, maanaam bato bi bato transport la ndax wàcc na Conakry am ñu wàcc am ñu yéeg mu wàcc Grand-Bassa ci Côte d'Ivoire am ñu wàcc am ñu yéeg mu wàcc Bénin mooy mooy mooy mooy Dahomey am ñu wàcc am ñu yéeg euh, léegi nag mu agsi libre Libreville nag mooy capitalu Gabon léegi nag fa la wàcc mu sax fa diir boo xam ne yàggut noona mu daal di fay génn nag daal di dem nag ci beneen euh, dëkk boo xam ne ni sax na fa juróomi at ci juróomi at yooyu nag la mel ni jant ci la taalife nag taalif yoo xam ni taalif yu baree bëri yoo xam ne nii euh, bëri na lool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 bi sëriñ bi àggee Gabon ak la ca xew nee na ba mu wàccee Gabon sax na fa ab diir boo xam ne nii diir ba yàggut euh, diir ba nag nee na ñetti weer la fa am ñetti weer wax ji nag ku ca bëgg a dellu demal ci ci sawu sàkkurul atuuf fi jawaabi Abdul Latif ñetti weer la fa sax wala lu ko jege mu daa génn nag demaat ci beneen dun foofa nag ma nga tudd maa yomba maa yomba maa yomba nag dëkk la boo xam ne dëkk tefes la boo xam ne lii mi ngi nekk ci siddu Gabon foofa la nekk euh, ña fa dëkk nag yenn xeet bu ñuy wax vili vili mooy xeet woowa waaye sëñ bi moom baavili lay tudd baavili dana tudd maa yomba it waaye danay wax baavili loolu it ku ko bëgg a xam demal ci gisaaw sakkul atuuf man fa nee na maa yomba googu nag sax na fa juróomi at juróomi yoo xam ne nii juróomi at yooyu nag ca la mel ni ab jant ci ak kawe ak euh, yëkkatiku ak njariñ nee na ca maa yomba googu taalif na fa ca diir booba ay taalif yoo xam ne nii taalif melut ni moom ci ab ab rafet ak bëri njariñ ci yàlla ak ci yonent bi ak ci diine lislaam nee ci dun buubu di Mayomba nee na ca tefes tefesu géejug Mayomba nee na sëñ bi nee na taxaw naa fa di wàqante géej gi ne li yashad bi kawniya abda man yaxfiru damba wa kawniya qadimal Mustafa baxra Mayomba na nga seede ne yow géejug Mayomba na nga seede ne na nga seede nekk gi ma nekk jaamab yàlla mi nga xam ne nii mooy jéggale bàkkaar ya te it na nga seede ne man mii kat maa ngi nekk di liggéeyal Moustapha yow baxaramaa yomba na nga seede loolu nanga nga seede walishad bi anni laa udaahinu mushrikan xalilan xabiban lilladi karrama aljanba na nga seede ne man mii kat du ma maslaa ak nooy ci kanam yéefar wala koo xam ne bokkaale yàlla dama nekk xaritab yàlla di soppeem yàlla mi nga xam ne moo teral sama wàll muy dem banaan ala aya baxru waxid laa tusallis fa rabbuna taala ani taslifi akrim bihi rabba yow géej gu yomba na nga wéetal yàlla te bul ñetteelal yàlla comme ni ko chrétiens yi defee au oh nom et de fils et nee na suñu boroom nag kawe na ba walif ñetteel mu wax ne ko fakun ratiraabin musbidan min maxaafati min allahi washad bi anni washad anni abdu sabba na nga nekk di dal tey duusu ngir ragal yàlla te nga seede ne man mi kat jaam bu tudd na ne gannaaw ba mu génnee ca dun booba ba nga xam ne ci la taalif taalif yooya di maa yomba léegi nag yóbbu nañ ko ci beneen dun beneen dun nag maanaam beneen dëkk bu waxee dun nag dëkk lañ ci jublu beneen dëkk dëkk booba nag moo tudd eh, làmbar na làmbar na googu nag moom eh, sax na fa ñetti at ñetti at yoo xam ne ni manqué foofu nag la jógee dem Sénégal nga xam ne fa la wàcc mille neuf cent wàcc sëriñ bi nag ci ay téeréem nag lu tudd euh, turu dëkk ba waaye day tudd rek xeet wa xeet wa fa dëkk nga xam ne mooy xeetu galwaa comme tey wax naan lillahi qad wasaltu inda galwaa wasaanani amma yajrul balwaa diggante euh, Lambaréné ak Mayomba nag trois cent cinquante kilomètres la trois cinquante kilomètres seen diggante ñoom ñaar diggante euh, Lambaréné ak Mayomba trois cent cinquante kilomètres la loolu nag boo ci bëggee xam dara demal ci gisaaw sakuru atuuf di seexil xadim nga xam ne Mourtada Bousso ak euh, sëriñ Mourtada Bousso ak sëriñ Maam Moor Hamdi ñoom ñoo ko taxqiq ku fa dem ku bëgg a dem rek boo demee danga ko gis foofa sëriñ bi tudd na ne am na benn waxambaane bu bokk ci ñoom yoo xam ne dikkal na ma ci fi ma nekk euh, loxoom nag mm, ci loxoom mi ngi ci téye jaasi jaasi ju ñaw joo xam ne nii mi ngi koy wëndeel ci sama kaw bopp bi daal di may wax ne ma yow yaay Ahmadou Bamba daal di jaar ci sama tur ma ne ko waaw mu ne nag ma wattandiku ndax sama maam kat moo nekkoon di rey wàllu yi moom reykatu wàllu yi la doonoon maamam man nag may doomam daal di nee na ma daal di fab sama xalima gi rek daal di ko koy jëmale daal di koy junj xalima gi joxañ ko xalima gi daal di koy gëdd daa ne ko daal di koy gëdd ba mel ni ku ko nar a songu daan na ko xamal nag ne yow duunoo sa maam ma daa raye te man it du ma ña nga xam ne ñoom la sa maam daa raye nee na mu daal di tiit nag nee daa di daa di daw nga xam ne xalima gi ma ko joxar bi rek tontu ko loola ca la daal di dawee moom sëriñ bi it mi ngi wax ne am na benn kilifa goo xam ne nii dafa wàcc ak armeem ca dëkk ba nga xam ni fa la nekk neena na nit ñi nag ñu ngi koy waajal di waajal uh, nganam gi ñoom ñépp ñi daal bale yoon yi ba mu set daal samp ay drapo wàcce nag nee mu daal di njëkk ci man daal di may laajte yaa koy tegtal uh, fa ma nekk nee na mu daal dugg ci man daal di ñëw daal may nuyu daal di tudd sama tur daal di may màggal daal di yëkkati loxoom nag jëme jëmee ko ngir saafoonteeg man ma tàllal sama loxo waaye ci ci mbetteel rek am genn kàddu goo xam ne daa mel ni ak dënn gu jóge asamaan daan ne yaa ayyuha allazina amanu innamal mushrikuuna najasun ee yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm yàlla da ngeen xam ne yéefar yi kat sobe nee na maa di sama nee na nee na nee na ma daa di eh, wëlbati sama loxo wëlbati bu diis maanaam daa di téye sama loxo nee na moom it fekk dama doon jox loxo moom it ma daa di may sori tuuti daa di taxaw ab diir xalaat du xool samay mbir ma nit fekk man maa ngi bind nee na gannaaw waxtu rek mu daa di woo interprète am daa di wax moom lu yàgg entreprenariat daal di ñëw daal ne ma daal di may nuyu daal ne ah euh, njiit lii kat daa ñëwoon rek pour nuyu si la di la di la xamal ne nag euh, bu ko jàppee dara ndax moom bokkut ci ñi nga xam ne dañ laa bañ walla ñu lay mitital wala ñu lay tomarankeel ba jëlee la jëlee la sa dëkk moom sax ndeysaan su mënoon sax léegi la lay delloo fa nga dëkk nee na lam ci jublu rek mooy mu njëkk ci yow balaa wàcc fenn mu ñëw seetsi si la ndax dafa am benn waay bu bokk ci nga xam ne say mbokk la bokk ci waa Sénégal nga xam ne moom ci ñu ko gën a sopp la ay xarit xaritam la nee na moo ma doon wax say mbir ne ma boo demee nang nang ma ko nuyul loolu de moo tax rek ma ñëw nuyu si la ndax moom kat daf laa bëgg lool mu sàkk woon ne boo demee nag ma ko nuyul waaw loolu nag moo tax ma ñëw nag ah, ngir bëgg loola waaye du leneen nee nag sëñ bi daal di wax entrepreneur ba ne ko na ko wax ne ko mankat kat jëfuma loola ngir ne maanaam ah, dama ko bañ walla lenn waaw ah, nee na mu daal di dem nag nee na mbir ma daal di jeex nee ba nga xamee ne nag dem na ba toog nag am genn kàddu gu ma wax ne ma teral ko ne fekk maa ngi yore am mburu boo xam ne dañ koo jaxase ak suukar mu neex lool nee na ma daal di ko koy yónnee nee mu daal di békk daal di may sant ci sama jëf jooja ah sëñ bi daal di wax ne lu mel nii day su su ko keneen defoon nga xam ne day feeñal ak njàmbaar nee na mën na caa loru waaye nag ndigal moom bu àndee ndigal ndigal bu bu amee rek du ànd ak loru ndigal bu amee du ànd ak loru daal maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi nee na bokk na ci karaama yi nga xam ne ni am na ca yoonu géej ga mooy feeñuk waa ahlu badrin ndax loola kat ñoom kat ci seen dëkk yooyu dañ maa def ci néeg bu mag néeg bu mag boobu nag dañ faa dëkkal soldaar yi ma nekk rek comme benn waa ci ñoom mooy camp militaire yi camp militaire yi nga xam ne day nekk euh, camp bu yaatoo yaatoo yaatu nga xam ne day gudd a gudd ma nekk ci seen biir nag nee na ñiy fo aka naan sàngara aka tux nee na ma muñ seen lori yi rek nee na ma xam ne rek ñaari malaayika yi nga xam ni mooy raqib ak nga xam ne ñooy bindal euh, bépp mu kàllaf ci ñun rek moo leen mooy mooy bind seen i jëf mooy raqib ak atiit feeg ñi nga mën a muñ rek di topp seen boroom rek man it wërta jaadu ci man may jàmbat ndax ñoom kat euh, dañuy loru comme nii may loroo ci euh, quartier gi ndax seen tux yeeg seen naan sàngara yeeg seen fomi te ñoom malaayka yi jàmbatuñ kon ma muñ rek nañ ko muñee nee nag yàlla àtte nag benn bit nag soldaar yi daal di génn nag jëm ca béréb ba ñuy tàggatoo ba ñuy entraînement yi ñu fekk fa mbooloo moo xam ne ni ñu ngi war ay fas ñu ngi kaalawu daal di sàppe nee na nee na ñu ragal nag daal di taxaw nee na ki nga xam ne mooy seen njiit la daal leen ni calmer daa leen nag ne leen nag képp koo xam ne nii nag nettali nga ko danañ la rey nee na ba suba jotee nag ba suba jotee ndax booba xam naa ci fajar gi la ba suba jotee nag nee na waa ahlu badrin daal di fàddu gisatuñ ko daa di nëbbu xibaar ba nga xam ne waxuñ ko kenn mais sëñ bi nee na gannaaw lool nag ci ay bis rek nee na commandant bi daal di may woo daal di ñeewanteeg man waxtaan ak man wax ju rafet nee na ci ca biir wax ja mu ne ma yow day daa mel ni am nga aw ndimbal goo xam ne nii bu fekkoon ne soxla woon nga benn mbir ñoom ñi dimbale la ca nee na ma ne ko ah ñooña moom xanaa ñan lañ ba ay nit lañ wala ay jinne mu ne ma ah yow kay xam nga ko nee na ma ne ko ah man kay xaw ko nee na mu di noppi nee yenn boroom xam-xam yi laaj nañ ko maanaam sabab bi nga xam ne ni ci la waa ahli badri moom la ko waa ahli badri feeñul euh, soldaar soosa lan moo taxoon mu ne irhaban lil aadaay maanaam ngir ñëw tiital noon ya nee am na ko ko laaj na ko ndax nit ña la wala malaayika la malaayika yi la nit ña wala malaayika yi la mu ne malaayika yi la am ñu ko laaj ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd na ak ñoom mu ne mooy seen njiit mooy seen njiit euh, fi la si la Sëriñ Tuubaa ne yasar naa la daa wali man qaadali li gaaba an kulli wali lii qaada ahla badrinin usuuda man saxsaxa alwaasiya walxasuuda yaquudu lii xaysu akunu allahu tabsira laa ilaha illa allah sëriñ bi nee na ñoom tubaab yi def nañ ko ci yoon wu xat ñu di fexe ba xiirtal benn nag nag wu wu koy noonu mooy nag woo xam ne nag wu soxat nee na ñoom ñi ngi taxaw di ma seetaan maag nag wi léegi nag ñu yaakaar ne nag wi damay songu waaye nag wi ba mu demee ba jege ma rek nag wi daal di naaw ba mel ni dafa am ay laaf Euh, nag yi nag mooy bi nga xam ne ni moom la euh, ibnu hanbali alxasani yi di wax naan bikrum min al baqari al ahliyi tairatan fi l jawi xata tawaarat fawqa atyaari nee na it mi ngi tuddaat fii ne am na benn bis boo xam ne nii dafa nekk ci béréb eh, béréb booba mu xaw faa yàgg ba mu fa yàggee nag mu xalaat ne béréb bi kat yàgg na fi waaye xalaat googu mu ko xalaat rek maanaam ba xaw caa mel ni lu ci xaw a amas njàmbat ci yàgg gam fa yàgg nu na yàlla xiir xiirtal ci kawam ay xorondom yu yu yu bari yoo xam ne nii da ñëw di ko lor nee na ba ma xamee ne lii kat ci sama bakkan moo ma ci xirtal ci xalaat ki yàgg googa nee na ma fàttali ko aaya bi yàlla wax wa ma asaabakum min musibatin bi ma kasabat aydikum nee na ma daa far njàmbat loola ci sant yàlla daa di wax ne na saxtu bi sukri sikaayati fala asku lahu durran fa durri afala nee na ca la xorndam ya daa di dem nee na ma ma mujj nag daa di noppalu nee na Sëñ Tuubaa mi ngi wax fii ne am na benn waay boo xam ni mooy duudama mbay duudama mbay la duudama mbay nag ku sonaloon sëñ bi la duudama mbay mii nag nga xam ne dafa nekkoon jullit ba noppi daal di mujj tubbi nekk chrétien waaye dafa murtat benn bis nag da ko masa ñaawal maanaam teg ko ay lor ndax du doo bay boo demee ci sawu sàkkuru géej gi siñ Moussa Ka day wax ne euh, léeg-léeg day euh, guux sàngara ñëw di ko buusu siñ bi walla mu jël cigarette euh, manque gémmiñ moom fees mu ñëw buusu ko siñ bi lu ne daal defloo na ko sëñ bi coo coono bu ne def na ko sëñ bi coono bu ne teg na ko sëñ bi moom Duudu Mbay moomu nga xam ne euh, rakki maam Abdouloo la muy fara biram loo rakkam la ñoo bokk ndey ak baay moom nag dafa sonaloon sëñ bi lool ba benn bis nag euh, ñi muy nekkal mooy mooy euh, copain yi ñi muy àndal daal di koy yedd daal di koy ragalloo ne ko nag na moytu ndax li ngay teg sëñ bi metti na ndax loolu mënta ñàkk léegi nag mu daal di ragal daal réccu nag benn bis nag mu ñëwal ma ci ak guddi daal yore benn gàtt ci loxoom maanaam boobu mat benn gàtt ci loxoom ak benn njaq boo xam ne nii bu mag la maanaam benn biteel bu mag boo xam ni dafa def euh, daa mu daal di ñëw nag ba agsi ci man daal di ne léegi daal daal rëccu daay bëgg sëñ bi jéggal ko léegi nag euh, fii mu toog fii mu nekk nii du fi jógee lu dul sëñ bi daa fopp ndëgg tànkam bi teg ko ci doqam gi nee na maa di ko wëlbati daa di daa di wëlbatiku maa wan ko ginnaaw daa di wax ak moom wax ju rafet fekk maa ngi bind euh, ma daa di wax nag ca jamono jooja daan ne xalabtali laylata xalba zirtidaat min baadi ma jaaha bi saatin wa midaat nee na bokk na ci ay karaamaam yi nga xam ne sëñ bi wax na ko ci géej gi nee na benn bis nee na damaa nekk ak benn commandant boo xam ne ni commandant bu soxot la boo xam ne daal dafa tar ci man nee daal benn bis rek ma ne daal danaa nattu sama jihaad ji sama jihaad ji danaa ko natt ci ci commanda bi nee na ma xool sama jihaad ci moom ndax tar gim tar danaa natt sama jihaad ci moom nee ma daal di jóge sama néeg jëm néegam ñu ne ko sëñ bi kat mi ngi ñëw de mi ngi ñëw ci yow. nekk ndax sëñ bi kat da dem sàkku ko waaye day terewu maanaam du du du nangu léegi nan lay ñëwee ci boppam ci coobaree boppam ñëw ci man ñu ne ko ah, lu ma nekk daal mi ngi ñëw nee na mu daal di gaaw fa mu jógee daal di dajeeg man fu sori daal di dëkk ci man euh, mbég mbég mbég lu for lool nee na daal di ànd ak man ba ca biroom mooy fa mu nekk daa ne loo bëgg di ko wax rek loo bëgg nee ma noppi rek di xool lan laa war a wax ba mu yàgg ma ne ko mën ko damaa bëgg daa daa laa soxla woon daa nee na mu jox ma benn biteelu daa bu fees dell nee na ma daal di koy wan ginnaaw maanaam ma di dëpp ba ma dëppee nag daal di commencé nag di bind ci xasida gi nga xam ne nii dañ ko toftale ci ab tal maanaam alif bata nee na araf wu ne nekk juróom-ñaari bayit nee ba ma agsee ci xarafu faa na ma bind nee bind nag bind ci xarafu faa bi muy dem di natt jihaatam ci e, commanda ba booba mi ngi tolloon xarafu faa nee na di bind nag ci laa bind faasat xilaami inda axlafa jaxat wa bi qul huwallahu ahad samay xalima texe nañ ca aat ba nga xam ne dafa weddi yàlla ma tàggat ko ci qul walaahu ahad mooy samay xalima am na liñ bëgg nee na daa di nee nag bay du laa ci jot a bind ne daal di bind nag yeneen bayit gannaawam nag nee na am kàddu gu ma wax ne ma lii de war la yow da leen a bàyyi ba faaw mutlaqan ba noppi nag di jël seeni mbir nee na maa maa di doytalu daa di bàyyi daa di gas ba mu xóot mu sotti ca daaja daa di xam na nag sama jihaad ja yàlla nangu na ko wal alhamdulillah Sëriñ Tuubaa it wax na ne am na benn nga xam ne doomu ndar la gis na malaayika yi ci ay nelaw nga xam ne da koo gént ci jamono jooja nga xam dañoo dugg ca dëkk ba nee na soxna si nag moo ko gént ñoom ñëpp nag ñuy rendi nit ña di rendi nit ña maanaam ña fa dëkk nee na ba benn waay jege ko ba benn waay jege soxna si maanaam ci waa ahlu waa ahlu badri ñooñu nee na am ko ne ko bàyyil soxna si kii moom jullit la nee na mu di koy bàyyi Sëriñ Tuubaa nee na radiyallahu anhu na soxna soosa te yiw lool nee na daf daa rafetal jëme ci man ci li li gën a jàppandi ci moom dama daa wax ne lépp lu ma la jox rek man maa ko liggéey ci sa maa ko liggéey lépp lu ma jox rek maa ko liggéey maanaam njëgu sàngara nekku ci njëgu pon nekku ci ndax jamono booba maanaam pon ak sàngara eh, dafa xewoon ca jamono jooja waaw maanaam ñoom dañ ko doon jëfandikoo waa Gabon kon nag na nga xam ne duma jëfandikoo sàngara duma jëfandikoo pon te it du ko jaay benn bis nag mas naa ko wax ne ko loo li ngay def nii maanaam teraanga jii nga may defal loo ci jublu mu ne man kat dama nekk ci àdduna waaye àdduna bii de li ma fi soxla mooy dama bëgg alaaxira nag la ma fa soxla mooy àjjana nee na ma ne ko wallahu ala kulli shay'in qadir yàlla mën na lu ne mën na lépp yàlla mooy dogal lépp nee na ba ma ko waxee ne ko yàlla lépp mooy koy dogal nee na tooguñ ab diire ci kàttanu yàlla rek soxna sa daal di ëmb nee na bi mu ëmbee nag ba war a am doom nag bi muy am doom nag nga xam ne am na doom ba pare nag ci la faatu nee na suwaa nee na mën ko jullee te nee na sama bët kero la mas a tegu ci soxna si kero ba mu koy jullee la sama bët mas tegu ci soxna si ndax soxna si lim daan jëflante ak man lépp da ko daa yónnee daawut ñëw ci man directement waaye da ko daa yónnee soxna sa nag yaayam moo tuddu daba sëy doomi daba sëy la turam nag moo tudd amina benn waaye bu ñuy wax yëlli sëy moom moo nekkoon euh, boroom këram nga xam ne moom bokkoon na ci ñi sosoon ci commanda bi nga xam ne ñi bëggoon sëñ bi doon rafetal ci sëñ bi moom ca la bokk nee benn bis dama samp nee bi ma nekkee ci quartier gi nee na ma samp ñeenti bant ci sama buntu néeg euh, def ab jullikaay ndax la ma ci jublu rek mooy ñi nga xam ne dañuy romb fekk may julli mën nañu jaar ci sama kanam nee na ma sampa ñeenti bant pour maanaam képp kuy dem walla ngay def leneen mën ngaa romb rek jàll te doo te doo jaar fi may jullee wala nga may yàqal sama julli di jaar sama kanam nee na commanda ba ci boppam daa di ñëw ci lu gaaw daa di may dikkal daa di sempi bant ya daa di tasaare jàkka ja bante nag mooy jàkka ja nee na mu daa di koy sànni daan ne laa salaata huna wala al islaama turido an tafsuda alayna al junda nee na daan ne fii julli xewu fi lislaam xewu fi dangaa bëgg yàq suñ quartier gi maanaam soldat yi danga bëgg danga bëgg a seen bopp daal nee na daa di noppi waxuma ko dara nee na ba yéen li say xamee ne lii kat euh, commandant bi moo ko def comme Yélisée daal di ñëw léegi nag ba mu agsee ci ñun nag meer lool daan ne commandant bi lan moo tax nga sempi jàkkaam ji maanaam bant yi mu fi sampoon te buntu néegam la ko def euh, xatalut kenn ci yoon wi ne commandant bi ne ko man maa ko def fii jàkk xewu fi Yélisée ne ko man maa koy delluwaat dama koy delluwaat na meloon commandant bi ne ko doo ko delloo nee nag ñi nar a songoo xeex nee na am nit ñi nag dox seen diggante nee na nga xam ne ñoom ñaar ñi ngi xuloo tàkkusaan ba timis nee na fekk man maa ngi bind nee nag jamono booba nag maa ngi bind xasida gu ñu wax rabbana axrijna min hadihi alqaryati zalimi ahluha wajal lana min ladunka waliyan wajal lana min ladunka nasira nga xam ne ci la taalif raditu an il mawla taala alladi rabba fuaadi wa agnaani wa akrim bihi rabba ba àgg ci la uktub salaatan maa salaamin bi aalihi wa ashaabihi wajcal masjidi rahba nee ci la am kàddu gu ne ma yàlla nangu na sa ñaan te da gis waaye ñun ñii de si amul la daga ne ñun ñii gis nañ ko ndax mooy jàkkay Jurbel ak te sooroor yi gudd te rafet waaw nga xam ne bokk na ci kàttana suñ boroom maanaam dogal suñ borom yelli sëy muumu bi nga xamee ne nga xam ne moo doon euh, jàppale siñ bi pour pour maanaam mu delluwaat bant ya ba xuloo ca commanda ba euh, benn bis mas naa ñëw njaareem euh, bi mu ñëwee jaareem nga xam ne fekk na jàkka ji tabax nañ ko mu yegg maanaam jumaay jaareem ji sëriñ bi ne ko sëriñ bi daal di may woo ba ma ñëw ak baay boo xam ne ñi ngi ànd mu ne ànd leen yéen ñaar ngeen dem euh, ak moom ak yëllisee mu xool jàkka ji wisit jàkka ji nee ñaari dem nee na mu war ndeyjoor ak càmmooy euh, penk ak sow biir ak biti nee na yéemu lool nee na bañ agsee sëñ bi ne ko waaw jàkka ji moom nu mu def ak euh, sama bant ya ma sampoon yow mi nga xam ne yaa doon xeex ngir man mu ne ko subhanallah ñoom ñaar kay wax dëgg yàlla tolluwuñ yemuñ sëñ bi ne ko nag loolu nag mooy maanaam sama wax ji nafa li gayrillahu fii ma yomba ma saa qalbiya wa aalal janba daan ne nag ma saa qalbiya mooy jàkka ja nga xam ne nii moom laa defoon foofa te commanda ba dikk sempi ko mooy bant yam semp sampoon waa xalal jën baa nag mooy yëkkati ko soroor yi nga xam ne yàlla yëkkati na ko ah, sëñ bi nee na bi nga xamee ne commanda bi sempi nañ ñeenti bant nga xam ne da defoon jàkka te commanda bi ñëw sempi ko benn waaye ca ñoom nga xam ne mooy ñaawalkat yi rek benn waaye ca ñaawalkat ya daa jël benn bant ca ñeenti bant ya daa dem ba ca wanagam mu samp ko fa dama ko sampee nag mu soxla boppam jël ndox nag waaye yàlla dogal nag mu jël benn satala dem nag di faj aajoom ndeke saw ndox ma dafa nekk ndox mu tàng jër te xamu ko woon te it iseewu ko woon ci loxoom yàlla dogal nag ba mu defee aajoom ba pare nag mu sotti ko ca cëram ba waaye nag euh, mu daw daw gu doy waar daal di yuuxu nag naan sama sëriñ sëñ bi xettali man alko de kaytali ma man alko naa de nee daal di sànni satala ga fu sore sori nee daal di ñëw nag nee loxo bi nag ma ngi ci biir tubay ja ko da ngay muñ rek dangay ngay muñ rek te wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Sëriñ Tuubaa nee na nee na ci yenn at yi dafa woor weeru koor nee nag la ma daa xamee weeru koor nee na yàlla moo ma ko yenkeewal nee dama daa bind weeru weeru weer weeru weeru wolof yi dama ko daa bind nee na saabu weer teroo rek euh, dama koy bind di bind fan yeeg yépp loola moom la ma yàlla yenkeewal ma xam saabu weer waree feeñ dama koy xam ndax dama daa bind weer yi nee nag waa dëkk ba nag ñoom xamuñ lu dul weeru français yi mooy weeru weeru euh, grégorien bii moom lañ xam nee na benn bi nga xamee ne woor naa ba koor gi jeex nga xam ne bisu korite gi nee na ma daa di gi nee na daa sangu daa di lépp li ma sunna digal rek ma def ko daa di génn nag euh, pour julli nee na ma dem ba ca pénc ma nee na ba ma demee ci pénc ma ma taxaw xool penkook mm, saw ndeyjoor ak càmmooy nee ma jàpp ne xëy na léegi kenn ci ñoom ñëw ànd ak man ñu julli nee bi nga xamee ne nag taxaw naa ab diir gisuma kenn nee na nag bi nga xamee ne maa ngi julli nag am ñaari xale ñaari xale yoo xam ne nii maanaam daanaka jege nañ ay njegemaar yu ay ay jànq yoo xam ne jege nañ mësoor nee na bañ ñëwee nag yaay taxaw nag di ma seetaan nee na nee na ma kàbbar ñu daal di reetaan nee na ma jàng ñuy reetaan nee daal lépp lu ma def daal dañuy reetaan rek ñoom daal ñu ngi taxaw di ma seetaan rek nee na bu ma kàbbaree ñu reetaan bu ma rukkooyee ñu reetaan bu ma sujjootee ñu reetaan nee na ba ma sëlmal nee maa di xutba daa di wax ci déeyante yi may déeyaale ak sama borom daa di wax ne yow sama borom xam nga ne mankat woor naa weeru koor nanga ma ko digale euh, wori naa nag sangu naa euh, julli naa nag ma ko digale waaye nag amut awma lu ma joxe muurum koor te bu ma ko amoon it ko jox fii kon nag yàlla na nga julli ci yent bi sallallahu ak ñooñam ak i saxaabaam te nangul ma euh, lépp loo xam ne nii def naa ko ci say ndigal sama kem kàttan te nga bilal bindal ma yoolu lépp loo xam ne lott naa ko wala ma yéene ko nee na ma di wax ne allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi nee na daa di taalif genn xasida goo xam ne mooy xasida xaafiya ala innani arju min al min al waasixi al xaqi bi jaa il muqafa naasiri al xaq bi nee na bokk na ci karaama yi nga xam ni am na ci géej gi nee na yenn jëmm yoo xam ne ni dafa bokk ci waa dëkk ba nga xam ne dëkk ba ma nekk nee na daf maa diggoon eh, biteelub misk waaye nag sàkkuwuma ko ci moom sàkkuma ko ci moom de moom moo jékki-jékki ne ma yow de xam naa ko bëgg parfum nga waaye dinaa utal parfum parfum misk nee na man duma ma sàkku dara ci ñoom tey duma duma du ma xaar dara ci ñoom it tey du dëgërloo benn rendez-vous boo xam ne nii jox nañ ma ko luñ ma dig daal duma ci du ma ci bàyyi xel waaye nag ci mbetteel ne ndekk dafa diggoon beneen waay boo xam ne moo dafa diggoon beneen waay boo xam ne ñoom ñaara yam maanaam ay moroom lañ comme lam ma dikk nee na ba nga xamee na lam diggee defu ko nag nee na waa ji ñëw di ko ko laaj joxu ko ko nag nee na muy xulook moom nag di xuloog moom ñuy tontante ñoom ñaar waaye booba jege nañ ma waaye nag ñoom nag ñoom ñaar ñooñu wolof lañ doon wax wolof wolof nee na wolof bi nga xam ne nii moom laa moom moom laay wax moom lañ doon wax waaye nag eh, nekkul wolof bu leer waaye nag wax giñ doon wax wolof rek nee dafa ma maa di fàttali euh, Sénégal nee na daf maa daal di fàttali Sénégal mel ni maa nga Sénégal ndax wolof yi ma dégg ci ñoom rek ndax yàgg gu ma yàgg ci euh, fa ma nekk waaw ndax dama ko gëj dégg waaw nee nag ci la sama xel nag nekk ci Sénégal ma bëgg Sénégal bëgg bëgg bëgg fa nag nee na man nag bi nga xamee ne gis naa ne ñoom ñi ngi xuloo ci joxooma koog danaa la jox ak yooyu nee na maa maa di wëlbatiku man daal di sant yàlla daal di dëgërloo yàlla yàlla bi nga xam ne nii mooy mooy kenn waaw daal di ci taalif ala innani usni ala xayri mun'imi wala ashtaki lil xay lil xalqi min faqdi an'umi daal di ci taalif xasida googu nee ci laa taalif xasida googu nee bokk na it wax na ci euh, karaama yi ko yàlla defal eh, Sëriñ Tuubaa moo ko wax nee na benn bis euh, damaa xëy waaj jëm ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma xëy benn cër mënu mënuma koo yëkkati ndax euh, mitit woo dafa daj sama yaram bi nee na ci sanse rek am benn waaye ci njiiti dëkk ba njiiti nguur ga nee na néegam ak sama néeg nag néegam mi ngi ci wetu sama néeg nee na mu reetaan ba kekku ak i moroomam nee na ma ne yow sama borom de xam nga ne li ma waaj jëm ca mooy liggéeyal yonent bi salaa salaam ak li ma gàllankoor maa ngi lay ñaan nga toxal feebar bii ci man Euh, jëme ko ci keneen koo xam ne ni dafa jàpp yàlla keneen ku dul yow nee na ci mbettee rek ma dégg ko muy muy bindi nee na maa di jóg daal di bind fekk maa ngi bind nee bokk na ci karaama yi ko yàlla defal ci géej gi nee na ci yenn béréb yi nee na ndawal dafaa jafe ndawal dafaa jafe nee na ay jën yi ndaw yoo xam ne dañ koy def ci euh, maanaam potu sardin yi ci lañ koy def waaye nee na yàpp moom yombu fa jamono booba nee na may mbaa cee jëfandiku nee na ba ma noppee ma raxas sama loxo raxas raxas sa raxas ba boole ba suuf sax boole naa ko ca pour bëgg maanaam xet gi dañ ak saabu bëgg naa def naa ko ci ngir bëgg xet gi dañ nee na bi ma xamee bi ma demee ba yittewoo bind rek ba tàmbalee bind rek am kàdd gu ma wax wa minhum alladina yuuduuna annabiya nee na ma daal di jàq jàq gu tar nee na nee na ci jamono jooju nag ca laa jëfandikoo xeeti jën yooyee ca bàyyee jëfandikoo ma def ko yi nga xam ne jaayante naa ko sama boroom nee na jamono bi nga xam ne jaayante naa ko sama borom ca loola nag walla lu ko jege rek nee na am ci ñoo xam ne dañ ma indil ay xar euh, mu nekk njëggu gaaw ca jën ya ma bàyyi jaayante ko sama boroom ñi andil ma ay xar yoo xam ne nii dañ ma ko andil nee na jamono booba labbe yi dañ daa jël ay xale maanaam xale yi nga xam ne nii dañoo ne ci dëkk ba nga xam ne ñoom gëmutoon gëmuñu woon dara nga xam ne ay nit ñu lañ jël leen di ànd ak ñoom ñi leen di liggéeyal bu ñuy dem ñu ànd ak ñoom euh, buñ demee marché euh, buñ jëndee dara ñu teel leen ko euh, benn bis na commandant bi daal di jot ne man mii kat soxla naa lu mel noonu mu ne bu la neexee kat ma jox la ci xale yi ñuy ànd ak yow ma ne ko man de awma ci soxla waaye bokk na ci seeni aada ñoom ci dëkk ba dañuy jël nit ñu ñuul ñi maanaam euh, waa dëkk waa Gabon di ànd ak ñoom maanaam comme ñi leen di toggal di leen rootal ak leneen lu dul loolu nee ma sàkku kenn ci ñoom pour mu liggéeyal ma waaye nee na ba mu ma jegee rek nee na daa xeeñ xunnu waaw nee daal nee jamono booba nag laa jaay nag xale yaag maanaam jaayanteeg sama borom maanaam xale ya xale ya ma waroon a jàppale ak mag ña ma waroon a jàppale na ma jaayanteeg sama borom ci jën yooya li noonu laa jaayanteeg sama boroom ca loola waaw xam naa yoonu géej gi nag euh, fii lañ koy yemale ndax euh, sëriñ bi def na fa juróom-ñaari at yu tegal ay weer ay yoonu géej gi nag lépp mëne su ko waxtaane euh, ndax day laaj ay émission yi émission waaw xam naa dañ koo tënk rek waaw ah, yemale ko fi rek ah, ñu ngi jéggalu ñëpp rek wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin